asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu ñu ngi nii ñëpp ah, ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen jaar di leen màggal di leen ndamoo di leen titro di leen bége xam naa ne tey moom journée relax la parce que dañ sonn parce que démb yëpp yéen a ngi nekk ci set setal town bi euh, voilà macha allah dëkk bi set na léegi lu ci des rek moom mooy di ko entretenir di ko maintenir bañ koo tilimal bañ koo saltel bañ koo yàq. ba pare di créer ay euh, ay poubelle foog sénégalais yi tàmm lu ñu naan bénévolat bénévolat dafa am solo ci réew euh, li ngay critiquer souvent yow bu fekkee da nga porter bénévolat mun na mun nga trouver solution bi mi ngi mel ni dëkk foo xam ni dafay faral di bëri embouteillage c'est ça yoo fa rombee mi ngi mel ni benn euh, croisement case ba wala ñu ne rond jet euh, wala ñu ne castor nga fay romb saa su ne ak car rapide wala clando whatever di gis ni day am embouteillage saa su ne doo liggéey samedi wala doo liggéey dimanche wala doo liggéey lundi nga jël sa sifflet jël sa gilet dem taxaw kenn waxu la xam nga circulation nga gérer circulation bi kenn fayu la mais loolu c'est important régler nga benn ci moyen de temps bi nga yor yow temps boobu nga jot jot a am li dimbale nga ci Sénégal loolu c'est modèle citoyen modèle la dimbale nga ci Sénégal c'est-à-dire moment bi nga xam ne yow toog nga ko liggéeyoo ko nga jël sa sifflet jël sa gilet dem taxaw xam nga code de la route nga organiser foofu noonu oto yi ñuy dem ko accident bu fa war a am du fa am parce que yaa nga fa taxaw ba pare ni ni nga bëggee oto yi gaawee dina def donc nit yi il faut ñu jàng li ngay critiquer yow yow yaa ngi solution bi. li ngay yàq yow yaa ngi solution bi solution boobu bu jógee ci yow rek nga doon nga def bénévolat rek mun nga trouver solution bi te loolu boo demee ba doon exemple de citoyen modèle ñeneen ñi dinañ référé wu ci yow dinañ xool ci yow dinañ jàng ci yow kon nit bu nekk war ngaa góorgóorlu nekk benn euh, maanaam citoyen modèle soxlawul amul du lépp lañ mun a xaar ci nguur ku nekk ci ñun war naa jóg wane ay exemple yoo xam ni nit bu ci xool jàng ci dina mun a yokk mbir yi ku nekk jéem a def lu mel noonu donc il faut que sénégalais yi commencé di def lu ñu naan suicide individuel boobu noonu maanaam di ñàkk di jëfal seen askan di ñàkk di jëfal seen réew voilà donc euh, il faut ñu mu mun di def loolu et puis organisation bi nga xam ne am na tey démb nettoyé ngeen et tout il faut ngeen veiller à ce que nit yi bañ koo yàq parce que c'est inadmissible doomu aadama bu jënd mbuusu ndox wala mbuusu crème wala mbuusu radi màcc ko sànni ko kan nga xalaat ni moo la ko war a foral yow mbuusu crème bu nga jënd ba màcc ko wala mbuusu buy ba nga jënd ba màcc wala mbuusu caaf bu nga jël boxam ko lekk jël mbuus ma sànni kan nga yaakaar ni yow donc moom nga fay pour ngay màcc di sànni wala di yëy di sànni koo xam ne yow fay nga ko pour mu lay topp di ci say paa di for li ngay sànni kan kan tu verras jamais jamais jamais un blanc mu mu lekk dara sànni ko ci mbedd mi tu le verras jamais j'ai fait plus de quinze ans bitim réew dem naa presque partout ci continent yàlla sàkk yëpp dem naa fa musuma gis topp ab di dox tubaab nekk sama kanam ak sama ginnaaw ma gis ñu am lu ñu lekk sànni gis naa ko junni yoon ak ci sama peuple nit bu ñuul naan kafe sànni ko kopp ba lekk sànni mbuus ma mais musuma ko gis ci nit bu weex et pourtant ay police topp ñu leen et pourtant ñi ñu leen di topp di nettoyer amul donc loolu lépp mooy lan parce que c'est des citoyens modèles ñu ñu façonne ñu bëgg seen réew doon ay patriotes nee naa leen du lu ñuy réclamer lu ñuy jëf la bés bu Sénégal demee ba patriotes yi bañ a wax ni patriote laa di ko jëfe Sénégal defaru mais tant que sénégalais ñi ngi naan patriote laa te duñ ko jëfee Sénégal du defaru donc nañ jógee ci patriote laa doon patriote maanaam patriote laa kenn bañ ko waxati kenn di ko jëfee ba ñëpp xam ni kii patriote la ak bëgg réewam du ko tilimal te fu mu tilimee mu setal ko fu mu jaxasooy mu organiser ko fu mu ñuulee mu taal fa làmpam et cetera et cetera loolu mooy patriotisme da ngay dem ba nga xam ni dañ la ci façonné da ngay dem ba nga xam ni même boo gisee lu normal yow yaay jóg dem lijjanti ci ko. maanaam circulation bu jaxasoo nga wàcc jóg dem def bénévolat doon benn bénévole jël sa sifflet jël taxaw organiser circulation bi quatre heures de temps bi ngay am di teg ataaya jeunes yi nga xam ne ñu ngi toog ci bopp koñ yi di naan seen euh, ataaya temps boobu nga toog noonu di naan ataaya di consommer suukar soosu noonu temps boobu boo ko jógoon ku ci nekk ci yéen séparé wu kii dem tëli bële croisement bële croisement Cambérène kee dem croisement tel kee dem kaas euh, ba kee dem nangam nang ku nekk yor sa sifflet ak sa gilet je pense bien que dina amal njëriñ réew mi dina amal njëriñ sa askan que toog di naan ataaya kese ak football ak a taxawaal mu wóor na li li ngay football nii doo ci am carrière amoo ci carrière munoo ko xamoo ko à part peut-être sport bi ngay def donc ku ci nekk war na mun a jamono ji réew mi toll ko foofu te loolu mooy dëgg man lay jox benn exemple jumaa ju may jullee jullee par vendredi fii euh, ay immeuble la quoi dafa am premier deuxième bu feesee premier bu feesee gars dañuy dem deuxième ba troisième souvent bu ma teel a ñëw ci premier laay dem benn moment dama dama yéex a ñëw ma dem deuxième bu ma demee deuxième mooy julli dama gis en face de moi foo xam ne ay làmp ñoo fa war a nekk ko am ay làmp yu tàkk am ay làmp yu brûlé am ay yu brûlé mais tàkk sama sama xel jox na ma ni làmp bi ak làmp bee tàkkul làmp yee ñooy tàkk instantanément ma ñu pare julli ma dem foofu xool lamp yi xam ban façon làmp la ma def nii dévisser lampe bi xam ban ban façon lampe la mais le l' autre vendredi avant moo jot bu ma génnee ci jumaa ji damaa dem jëndi lampe yooyu denc sama kër vendredi beneen bi bu mu jot dama teel a ñëw yéeg ci kaw defar lampe yooyu ma génn lampe yooyu xëy na nit yi duñ ci bàyyi xel mais lu ndaw la ma génn lampe yi nga xam ne dañoo la nekk foofu ma def ci lampe calmement dem julli vendredi dem sama yoon et làmp lamp yooyu di tàkk noonu am na ñetti làmp ci lamp yu burle man maa ko defar calmement pourtant kenn waxuma ko kenn fayuma kenn ti wutuma ci xool wutuma ci dara il faut que sénégalais yi di toll foofu di bàyyi xel seen environnement di bàyyi xel li leen wër li ci yàqu ñu fexe ko defar te duñ ci déglu duñ ci xaar dara duñ ci xaar kenn il faut ñu am amour boobu noonu amour patriotique boobu noonu lu seen environnement tout ce qui tourne autour de ñu prêter ci attention lu ci yàq luy def bruit sax di yàq ñu mën a xamal ne eh bruit bi nii boo ko mënoon wàññi wala lii boo ko mënoon def ne wala lii boo mënoon def ne donc il faut ñun sénégalais aussi ñu toll foofu parce que dañu bugg changement te changement du ay waxi kese il faut que nit yi déjà décider de changer leur façon de faire leur pratique leur démarche changer lépp ci ñoom changement bi ci ñoom lay tàmbalee ca la ci ñoom lay dooree doo ko commencé feeñ di illustrer wu ci seen société il faut ñu commencer loolu donc set setal bii normalement bu dee am na suivi bu dee am na suivi oto yi nga xam ne jël mbalit ñiy jël mbalit à temps bu dee am na suivi je pense que fii ak un mois sax soxlawul ñu set satal bu dee am na suivi parce que ñun ci suñu bopp dañoo bokk ci société boo xam ni gars yi en fait à part seen kër ñoom pour ñoom seen néeg walla seen kër rek moom moom lañu war a defar parce que nit munul tibb mbalit ci këram xool gauche xool droite sëf ko ci force bi wala sëf ko ci euh, euh, canal yi dem yoonam xaram de mu bàyyi ba guddi mu génne sànni mu ex mu toj ci kii di xeeñ ci koñ bi c'est-à-dire waxuma àq sax àq ak àq doomu aadama bu doomu aadama yi di di am ci seeni morom mais bu fekkee da nga bëgg sa réew da bëgg sa sa gox yooyu du ay pratique yoo xam ni nit doomu aadama war na ko def donc pour l'instant après loolu yëpp dina ñëw y aura vraiment des sanctions service d'hygiène dina fa kii ñi nga xam ne ñoom ñoo gérer ay affaire tibb mbalit ma aussi dinañ ci dinañ ci dox dina ñëw dañuy façonné fu nekk nii le nouveau type de sénégalais lañ nekk di façonné le nouveau type de sénégalais boobu lañ nekk di façonné ban nit sénégalais la ñu bëgg fii ak vingt ans wala trente ans ban sénégalais la ñu bëgg suñu réew ñu façonné leen xëy na ñi ci jot a génn bitim réew ñooñu nasaraan yee leen façonné parce que Mollah Mollah mii di wax ak yéen nii melul woon ni mu mel nii di ko doxee nii melu ko woon Sénégal ah je le dis haut et fort j'étais pas comme ça Mollah du Sénégal était un quelqu'un très archaïque très très il s'en fout éperdument mun na damay lekk di sànni di di gas di def comme les Sénégalais le font je m'en foutais pas mal quoi mais bu ma ñëwee fii gis règle yi ni muy doxee ma xam ne fii dafa am ay sanction fii dafa am ay nga sànni fii gars yi sanctionné la police parce que fii gis naa nit yi toog nii di lekk ay gerte toog ñoom ñëpp nekk xarit nekk xarit teg seen i di lekk di sànni di lekk di di lekk sànni mais police moo leen fa fekk télé lañ ko wane télé police moo leen fa fekk en encercler leen ñu indi caméra yi wane leen télé ñu jàpp leen ñoom ñëpp yóbbu leen sanctionné leen ku ci nekk yaa presque yaa ngi fay benn mille dollars <laughs> yaa ngi koy tey lo loolu ko ko jëndee deux deux la ngay lekk deux dollars goo jëndee mais police bi bu mu ñëwee ñu wane leen ci télé yi mais tubaab yëpp dañuy dañ doon offisqué wu mer mais ñii ñoo ñaan ñii ñoo nangam mer te pourtant ci banc public lañ toog di lekk di sànni ci suuf kenn ku ci nekk ci ñoom góor ak jigéen dañ leen fayeekuloo ñoom ñëpp amande boobu bu saf-sap ba pare interview la ñu ne xalaat dañ doon xalaatuñ xalaatatuñ ko et pourtant bu doon sénégalais mun na taxaw ne la non pare gu ma def dama ko sànni suuf après danaa ko tibb ma def ko nangam ak nangam non non non parce que nasaraan bi li mu jëlee di ko lekk bu pare bu amee xot foofu la ko sànniwaat wala mu wut beneen sànni ko foofu ne du ko sànni mukk ci suuf donc lan moo waral ñoom duñ ko def moom mooy sanction yi sanction yi saf yi yi nga xam ne tey boo jëndee tey benn mbuusu caaf bu cent franc nga boxom ko sànni ci mbedd mi ñu jàpp la nga fay dix mille xam nga <laughs> loo jëndee cent franc sa ñu fay loolu dix mille nga fay ko par force bu ëllëgee boo lekkee gerte di nga xam fan nga koy boxam donc règle yooyu noonu nekk fii ñu établir ko ñooñ moo tax ñun tamit ñun sénégalais yi dem jóge fële ci dëkk bu archaïque dëkk boo xam ne on s'en foutait pas mal amul Euh, recyclage amul ay euh, ay kii amul ay com compost amul dara lépp lañuy ñuy jaxase benn mbalit moo am Sénégal Sénégal amul ñetti mbalit amul ñeenti mbalit sénégalais boo laaj benn mbalit laa lay wax ana mbalit pëllu mbalit mi mais boo ñëwee fii ndekete fii mbalit dafa bëri façon dafa am mbalit pëllu mbalit recyclage pëllu mbalit boo xam ne non recyclage pëllu mbalit boo xam ne compost la lu nga desut lekk yi donc da ngay da ngay xam pôle mbalit yëpp ak bu ci nekk ak couleuram te loolu fii gars yi règle yooyu gars yi ñoo ko établir léegi nag Sénégal munuñu ñu xëy rek def loolu mënuñu xëy parce que fii dañ koo liggéey donc loolu lañ jóg pour liggéey ko ñun tamit pour am ko te lu mun a nekk la léegi nag ñëpp ñoo ci def seen loxo ñëpp ñoo ci participer une gestion participative lay doon boo xam ni si ñun ñëpp ku ci nekk da ngay jéem a doon benn citoyen modèle donc nañ sàmm li ñu def tey li ñu def démb nañ ko sàmm ba nga xam ni vraiment pour génne gars yi di defar ay set setal mun na jël temps gis naa nag comme euh, na comparaison ne pas raison gars yi wax ni bon lutteurs yi génn ñu gisuñu lutteurs yi te lutteurs yi ay écurie lañ yor normalement war nañ mun a génn parce que ay sénégalais lañ te te dañuy pratiquer benn sport boo xam ne sénégalais dañ ci gis seen bopp di leen jàppale donc bu sénégalais soxlaa lutteurs yi war nañ génn am nañ doole bi am nañ corpulence bi corpulence bi am nañ kàttan bi am nañ mën-mën bi am nañ tam nit ay écurie lañ yor donc buñ wootee Sénégal si set setal lutteurs yi war nañ mën a génn sénégalais ont remarqué benn lutteur génnut ñu génnewuñu seen écurie waykat yi chanteurs yeeg artistes yooyu gisuñu ñu ñu drainer seen monde génn jiital ñëpp sol sol seeni blouson taxaw def ko parce que c'est le Sénégal li du ay affaire politique il faut savoir faire la part des choses entre la politique ak li nga xam ne moom mooy euh, public loo xam ne c'est c'est c'est le domaine public cadre citoyen lañuy wax donc kenn du ay affaire nguuru jomaay la wala nguuru nangam c'est le Sénégal nettoyage boobu noonu set setal sa koñ ngay set setal sa koñ sa gox ngay set setal loolu donc loolu c'est pas politique te ñooñu ñëpp ñuy wax noonu dañoo am ay nit leaders yi dañu am ay nit am ay écurie am ay fans tey bu Modou loo génnoon parcelle Yékini génn la Gaye génn géejawaay kee génn fële kee génn ñu dajaloo loolu ak seen nit ak seen i mbër ak seeni i écurie yaakaar naa ni c'est c'est déjà dafa am solo sax parce que dañuy gis ni ñoom ñu ñu ñu référé wu au moins bu dee ay poser ay ak citoyens la ñoom ñoo ci jiitu parce que ci ñooñu la ñuy référé am na booy yoo xam ne ñoom Balla Gaye mooy seen référence kon tey gis benn Balla Gaye yor ratoom ak écurie ñi yor seen pelle ñi yor seen burette kooku ça fait plaisir loolu rek maanaam euh, référence boobu wane na exemple référentiel boo xam ne nit yi buñ ciy référencé wu sax dinañ ne même bu dee bu amee boppam la mais bu bu peuple bi soxlaa day génn muy Modou Lo di keneen ak keneen gars yi gis ni quasi absent kenn ci ñoom génn du ñoom du seen i écurie artistes yi tam dañu am ay nit benn artiste taxawul sol yërëm ànd ak ay nitam ñu wane ni Wally Seck ngi nii ànd ak ay nitam ànd ak ay gàngooram wala yu Ndour a ngi nii ànd ak ay nitam ànd ak ay gàngooram gaa yaa ngi nettoyé donc c'est intéressant et c'est important loolu nit dafa war a doon exemple surtout bu dee ci yow lañuy ñuy roy am wala am na ñuy roy ci yow journalistes yi nga xam ne c'est des donneurs de leçons gisoo ci kenn te boo maison de presse boo dem am na nu mu dee dee dee quinze personnes yu fay liggéey yaakaar naa ne bu fekkee dañoo yónni kenn kese muy wane vi muy vidéo wala muy wane image yi ñeneen ñi waroon nañ yor seen bar bale ak seen rato di wane la bon exemple maa la waatal ci yàlla bu doon États-Unis la ñuy nettoyé tey da ngay gis ay ñoom di di gis bu doon États-Unis la ñuy nettoyé New York la ñuy nettoyé di gis rappeur américain yëpp génn di nga gis musiciens yi jazzman yi ñëpp dinañ génn reggae man yi ñëpp dinañ génn fierté lay doon ci ñoom fierte tele yi di leen wane ñu naan kii moom moo jiite lii ñu naan ay Kanye West moo jiite fii ñu naan ay euh, euh, euh, telle personne moo jiite fii telle personne da nga leen di gis parce que fierté boobu dañ koy am fierté boobu dañ koy am ñoom malgré que c'est des capitalistes mais bu tey Amérique soxlaa ñoom ñëpp dinañ génn parce que esprit citoyen bu ñu am génn kese nettoyer sa dëkk nga ci am junni calcul non bu ma ko defee noonu mun na arranger jomaay noo bu ma ko defee mun na nangam soxor ba soxoree sa bopp soxoree ba soxoree sa bopp mille et quelques journalistes mille et quelque journalistes yoo xam ne tey jii mënoon nañ génn ñoom it jiital seeni seeni maison de presse di nettoyer quasi absent mais on n'arrête pas la mer avec ses nit yi dañoo jóg pour liggéey seen réew nit yi jóguñu pour ay politique dañu seen réew dañ ko bëgg Ousmane Sonko politique boolewuleen ak ñoom dama ne la. projet bu leen Sonko incarnel moo leen moo tax nit yi dem ci moom donc te projet boobu sénégalais dañoo gëm ni dafay amal njëriñ sénégalais yi bu Ousmane Sonko présenté woon lu amalul njëriñ sénégalais yi du am sénégalais yi donc day wane ni fierté boobu ak bëgg-bëgg bu sénégalais yi am pour seen réew boo leen di nax sax ci sa bëgg réew moo tax nga leen di naxe wala projet boo xam ni da nga bëgg sa réew nga leen naxe kon ci seen bëgg-bëgg nga leen naxee donc sénégalais dañoo bëgg Sénégal loolu moo tax nit bu bëgg Sénégal wala bu wane mbëggeelam ci Sénégal moo leen mën a nax kon ci mbëggeel lañ ko demee mbëggeelu Sénégal moo tax tey jii su bu Ousmane Sonko gestoo gis sénégalais taxaw bu wane woon benn mbir luy wane ni bëggul Sénégal sénégalais ne ko ñu ko na yàq bu naqari donc sénégalais dañoo bëgg réew mi réew mi moo leen ñor réew mi moo leen soxal réew mi moo sori ci seen xol. loolu moo tax bu ma demee ba xat ba xat ba xat ba xat ba xat Ousmane Sonko bu ma joxeñee jomaay ñoom ñëpp dem topp jomaay te ñi doon topp jomaay quatre-vingt-dix pour cent xamuñu jomaay mais dañoo bàyyi lépp lu ñu jàppoon dem topp dégg ndigal foofu la Sénégalais yi wanee dégg ndigal dama ne benn dégg ndigal boo xam ne benn nit moo ko defagum Sénégal mu dajale lépp sëriñ sax amu ko fa benn sëriñ mënul wax ni na ñëpp def ñëpp def du murit du tiijaan du bu xaadir du bu moo am benn ndigal boo xam da koy wax chrétien ba def ko musulman ba def ko athée ba def ko lépp laayan ba def ko murit ba def ko loolu amul fenn Sonko moo ko def Sénégal moom moo taxaw ne joxañ naa jomaay cretien ba dem votel jomaay musulman ba dem jox euh, votel jomaay murit ba dem votel jomaay tijaan ba dem votel jomaay xaadir ba dem votel jomaay laayeen ba dem votel jomaay ñeseen ba dem votel jomaay ate ba dem votel jomaay ku gëmul dara dem votel jomaay loolu lépp kenn la ko yàlla may Sénégal ba Sénégal daj mooy joxe ndigal ñëpp def mu am plus de cinq millions de doomu aadama yu votel cinq millions cinq cent doomu adama yu votel benn nit cinq millions nga dajale ko si Sénégal et quelque yu votel benn nit te benn ndigal benn doomu aadama te du sëriñ du xut bu samaan mais kon mooy wane ni mbëggeel bu mu am cofeel bu mu am ci Sénégal loolu moo tax cinq millions cinq cent mille doomu aadama dem votel pour kooku c'est super intéressant et important moom rek ko ko fi am amul keneen yàlla may ko benn doomu aadama Sénégal moo fi joxe ndigal ñëpp jëfe ndigalam sans distinction de race de religion de je se pas moo ko fi moom rekk a ko fi am donc loolu lan lay wane mbëggeel moom bu mu am ci Sénégal moo tax nit di suivre ko góor jigéen mag ndaw paa mère ñëpp dem suivre ko donc loolu yàlla moo koy def nit munu ko xeex kenn mënul soxor ba wàcce jant bi yàlla jant bi fi mu ko teg moo koy wàcce moo koy dugal moo koy génne loxo nit xaju fa donc pexe nit munul fexe fexe fexe pexe ak soxor ak iñaan ay bu ma génnee mu arrangé kii nangam munul fexe ba li yàlla dogal ci waajooju noonu du am parce que moom mooy choisir nitam mooy choisir représentant am moom donc bu ñu wootee pour Sénégal gars yi dañuy génn am na ñuy a def différence wala ay euh, naan dañuy jéem a def euh, comment dirais-je comparaison naan non Macky Sall Macky Sall benn yoon la fi def set setal xaw ma ñaari yoon douze ans la fi toog douze ans addunaam yëpp Macky Sall ñaari yoon mat matul ñetti yoon bu Macky Sall faroo douze ans deful ñetti yoon set setal ñii falu dafa ñu sax deux mois commencé set setal bii mooy deuxième ou troisième fois set setal dañ naan bii mooy premier bu président Diomaye génne mais depuis bu ñoom Diomaye faloo ba léegi ñaata yoon la fi patriote yi dem dajaloo def fi set setal jour bu mu faloo laa la wax set setal réew mi yëpp la ñu set setal voilà loolu musul doon idéologie dama leen di expliquer musul doon idéologie APR mais Pastef en deux mille vingt en deux mille vingt si vous vous souvenez bien la ñu commencé les vacances agricoles patriotiques ci lañ doon maye deret Macky ba mu nekkee ci opposition musul maye deretam Macky Sall bu mu nekkee ci opposition musul def ay vacances agricoles patriotiques Macky Sall mu nekkee musul def acte patriotique pour le peuple sénégalais. mais ñii bu ñu ko tàmbalee ñii boobu ñu ngi ci opposition bi bu ñuy jël seen deret bi di ko joxe Ousmane ko ñu koy roofal deretam mu koy maye Diomaye ñu roof deretam mu koy joxe te ñu ngi ko jox du papaam du yaayam ñuy def ay vacances agricole di def maye deret don de sang boobu boobu ñu ngi ci opposition bi dem leen laaj ba xam Macky Sall daa mos a maye deretam opposition donc musul poser un acte citoyen patriotique pour le peuple sénégalais cette première année mi musul def set setal kon kooku musul bëgg dara cette première année musul def set setal Macky Sall ak nguuram cette première année musuñu def vacances agricole ñoom patriotique cette première année musuñu may deret kooku la ñuy comparé ak ñoo xam ne bu ñu nekkee opposition lañ doon jël seen deret di ko joxe bu ñu nekkee opposition lañ doon def ay vacances agricoles patriotique bu ñu nekkee opposition lañ doon lañ doon cotiser di dimbale doomu aadama bu ñu nekkee opposition lañ doon dajale ci lu ñu am di ko di ko jëf ngir doomu aadama yi di help doomu aadama yi waaye loolu la comparaison n'est pas raison Macky Sall n'a absolument rien créé absolument rien sept la def loo xam ne musul bale réew mi sept la def musul yore bale sept ans la def après à la dernière minute la ko def te bu mu ko defee matul ñett donc douze ans yoo xam ne boo ko calculer li mu def ci bale matul ñett te boobu fekk na yeneen dëkk yi ña ngay def nañ yooyu bu yàgg Kigali dañ ko bale ba mu set donc dara la fi Macky Sall créé wul Sonko ak Diomaye du ñu moroomu Macky Sall du lu ñuy tàqal du ñu lu ñuy jagale boobu mi ngi ko copier ci Kagame dafa dem boo ca la demee sax boo leen fàttali ko ca la demee Rwanda ba mu demee Rwanda jommi gis nu mu setee gisee nu ko organiser vacances citoyennes yi fay am projet set setal ya fay am yu peuple bi di génn di ko def bu mu fuñ bu mu ñëwee la ko da ko tricher comme pata pourri la gâteau foutu boo pour la poubelle graisse gi bëri mu commencé ñaari yoon la yanu peel daw ñaari yoon la yanu peel daw donc douze ans ñaari yoon la yanu peel moment boobu moom moment balaa moo yanu peel boobu Sonko mi nga may deretam boobu Sonko mi ngi maye deretam ay nitam ñi ngi maye seen deret ñoom Fadilou Keita ñi ngi toog di maye seen deret boobu Diomaye mi ngi maye deretam moom ba mu yanoo deuxième bu mu yanu peel boobu Diomaye mi ngi ci àll bi nekk ci vacances agricole patriotiques boobu patriote yi ngi ci àll bi di xotti di bay vacances patriotiques boobu moom mi ngi taxawaalu donc vraiment comparaison n'est pas raison ñii ci opposition lañ commencé di def ay actes citoyens ay di cotiser seen xaalis xaalis nga xam ne dafa sax ci xol waa Pastef di cotiser seen xaalis ku amul dara di joxe jëf jël ñàkk jëriñu di jox gaay yi di dimbale doomu aadama yi di leen help donc ñii kenn du wax maanaam pom du new kenn du comparer ñoom Pastef fu ñu jóge ak acte yu fort yu posé ba yegg si fii ak ñi nga xam ni def nañ sept ans ci nguur defuñu fa dara musuñu may seen deret musuñu yore bat euh, euh, euh, peel musuñu yore buret musuñu yore rato njëriñ amuñu ko musuñu am benn projet de patriotique musuñu ko am donc vraiment yabaate moom mooy toog naan da ngay jéem a comparer Sonko ak Jomaay mel ni Jomaay ak Sonko di leen comparer ak Macky Sall Macky Sall dara la créewul dara bu mu gisee Ousmane Sonko di sport benn yoon la génn sport ngeen gis ko mu sotti ndax ndox gi boobu la dawee te dafa gis ni Sonko mi sport sànni giren brad maa jéeri dóor wàcce dóor benn benn benn coup entrant sortant mu tiit ca la dawee benn yoon lañ ko wane mu génn ñàkk ne daa sport ca la dawee ba bu muy Macky Sall ba buy génn fii mille cinq cent kilo de graisse la la yóbbaale kon dayu bay du pasti benn yoon la gis Sonko sànni maajéeri bi la lendemain mu dem benn tapem daw ci tape ba ñàkk ñu foto ko mu taxaw gis nga bu muy génn mille cinq cent kilos de graisse la génnaale biir bu tey ni innama mel ni ku wasin ñaari ku ku ku biir ñaari liir wala wala wala ay jumeaux wala wala ñeenti doom ci biir biir bi taar yaa ngi mel ni kuñ chirurgie esthétique mel ni ay éponge la ci def noonu la génnee réew mi donc benn yoon la ko def benn yoon lañ ko foto dolleetu ko xam nga kenn du ko comparé koo xam ne bu mu duggee ci kaso ba sax dañ ko indil veloom bu mu duggee ci kaso sax dañ ko indil muy ak tapim day bay du passé vraiment di tudd Sonko di ci teg ay Macky Sall moom yabaate la bu la fa Macky fekkoon sax dina la ñuus ne la bul bul ko tudd di ma tudd moo ma gën a nekk xale moo ma gën a dëgër moo ma dàq xeex moom a gën a am physique moom a gën a taxaw moo ma gën a bëgg réew mi bokkuñu dara musuma joxe sama loxo ñu jam ko ma maye deret man Macky Sall kii fo fo chaque jour mi ngi maye deretam foo ko fekk mi ngi taxaw di maye deretam donc il faut pas il faut comparer lu lu ñu lu comparable voilà donc bokkuñu ñii bu ñuy def seen vacances citoyennes bu ñuy def seeni acte citoyen bu ñuy wane seeni preuve ni dañoo bëgg seen réew waa Pastef vraiment boobu Macky Sall mi ngi jàpp nit yee ka toroxal ak a fen ak a sosalaate c'est même pas la même chose maintenant nag vous savez la solution face au manipulation des médias menteurs c'est de les laisser avec le service des impôts c'est tout gars yi lappi-lappi gi ngay gis nii lappi-lappi gi ngay gis nii mu tàmbalee ci média menteur manipulateur du dara lu dul parce que xam nañ ni impo yaa ngi ñëw seen kaw te ku impôt jaar sa kaw ba tànc la nga génne la nga ko yoreel di nga tal leneen lu dul wër di manipuler ko kàcc ces médias menteurs là manipulateur donc dañ leen di bàyyi ak impôt bi rek et les obliger à payer intégralement leur impôt bu boobaa ils auront d'autres préoccupations que de passer leur temps à mentir c'est tout et que le peuple sénégalais doit faire bloc autour de, le, de leurs leaders pour les protéger contre ces déstabilisateurs yi nga xam ne lépp la ñuy instrumentaliser par la bala par la France wala les barons de l'ancien régime ñoo nekk ci ginnaaw donc nañ leen bàyyi redressement fiscal bi rek léegi ñu noppi ñeneen ñi nekk ci ginnaaw di ratatati tamit moom mooy ñi nga xam ne mooy l'ancien régime wala la France wala ñooñu ñëpp dañuy réglé wu bale bu jomaay yor bale boobu dinañ bale réew bi ba mu set wecc wecc wecc wallaahi lu gaa yi di liggéey kuñ ci ubbil tuuti rideau yi di liggéey laa la man Mollah Morgun maa leen koy garantir dama leen wax ni lu Sonko ak Jomaay di liggéey ku yàlla may tuuti ñu ubbil la tuuti kiraay muril la kiraay gi wallaahi boo demee di nga nalaw ba yandoor man de lu ndaw lu ma ci xam laa la wax damay tëb di sàllarñiku di naaw di fecc bay mbëkk miir di wàccaat ndax mbëkk te wat naa ci darajay Seydina Mohamed sénégalais dinañ bëgg loolu man maa leen ko garantir billaahi di ngeen kontaan wallaahi di ngeen kontaan wataalaahi di ngeen kontaan gis nga sama ndaanaan yii ku am chance ñu ubbil la ci li ñu nekk ak ci li ñuy liggéey barki Seydina Mohamed di nga dal boo soxoroon sax di nga dem defari sax di nga yóbbu sa xol bi géeju ndaayaan raxas ko te xam ni gàcce gu rëy dina la dal gàcce gu rëy dina la dal wallahi billahi di ngeen bëgg di ngeen xam ni li fi ne bokkul ak li fi nekkoon di ngeen ko gisal seen bët jaxaran jaxaraan billahi di ngeen ko gisal seen bët jaxaran lépp jeex na fi ministre yi daan sàcc ay million di ko jox géwél yi ñi leen di chanter seen i louange jeex na fi sàcc ay millions détourné ko dugal ko ci ay compte en banque jeex na fi génn ànd ak say cogg ak say suq ñu lay tagg say baaxu maam ngay jël ay millions di leen jox jeex na fi donc xaalisi réew mi day des ci réew mi xaalisi réew mi nekkul ci ay compte banque personnel yépp jeex na fi loolu rek maanaam la ministre yi doon tojee ci ay millions di ko may ka joxe seen i seen i euh, lu mu tudd seen i militants ay et cetera seen partisans lépp jeex na benn sénégalais ñimewul taxaw fii ne Birame Souleye may na la un million benn sénégalais benn sénégalais du taxaw fii ne Ousmane Sonko may na la deux millions du benn sénégalais te nguuru Macky Sall ku nekk mun na génne ne encaissé na cinq millions dix million sept millions kii may na mu trente millions te paquetu paquetu ngeen doon gis ñu ko yóbbu partout di ko tasaare comme nu leen neexee. te loolu c' était l' argent du contribuable c' était nos impôts ñoo nos taxes donc mbir yi jeex na. léegi nag naa leen waxal dara man moom man man moom am naa benn chance xëy na sama liggéey moom ko def walla xeex bu may xeex moom ko def am na benn crédibilité bu ma gañee ci ñoom ba nga xam ni bu coow ne yur man moom dinañ ma woo ci pet. yëndalul man ne ma liggéey baa ngi nii moo laa yow moom bugguñu dara réer la ci liggéey baa ngi nii te billaahi wallaahi wataalaahi buñ ma wanee liggéey bi dama sama xol tey da moo war a live bi sama xol dafa sedd dama kontaan dama kontaan trop sax mun ma gëm ni nit nguur mun naa liggéey ci moins de deux mois ci lu day nii loolu moo tax après j'ai compris lan moo tax Ousmane Sonko fan yi effervescence bi nekk ci moom nga gis buy wax nu muy kontaanee nu muy kii te te ko wax da nga de leen hey di ngeen gis résultat yi ci yàggatul di ngeen gis résultat yi ci yàggatul ñëwaat démb waxaat man tey ci fajar huit heures lañ ma woo wan ma ci liggéey bi fu mu toll dama ci bég dama ci kontaan dama ne lii munu ma munu ko noppee munu ko noppee maa ngi doo ko comprendre lan moo tax Ousmane Sonko di wax ak gars yi nii mais lii sawaay ni lii nit mënu ko lii lii nan ko fi mën a liggéeyee ci ñaari weer nan nan la mun a nekkee te billaahi wallahi wa taalaahi gars yi liggéey nañ lu mucc ayib bés bu ko yàkkee sénégalais yëpp ay kontan seen xol dina sedd torop torop torop torop man maa leen ko assurel man man mi yàgg yegg nekk ak yéen di leen di joxe information di leen wax li nekk li am man maa leen wax dalal leen seen xel yi toog leen seen noon yi dinañ rus dinañ jooy di ngeen bëgg di ngeen kontaan gars yi ñu ngi liggéey à deux cent pour cent lekkuñu naanuñu nelaw bu mat defuñu ko comme Europe la Ousmane Sonko di liggéey six heures du matin day yeewu dem liggéeyam bu nekkee ci bureau boobu di recevoir di bind di teg di xool di woote téléphone di lijjanti bu fa génnee deux heures du matin la trois heures du matin loolu moo tax mënatul sax dem këram léegi waaye njabootam lañ indi yóbbu leen Petit Palais mi ngi Petit Palais pour mu parce que dem dem ba këram goo sax di ñëw def defatu ko mu ngi Petit Palais foofu la nekk ak ay soxnaam foofu la nekk ak njabootam pour wan la ni nit boo xam ne six heures du matin ngay yeewu sept fekk la sa bureau boo génnee trois heures du matin des fois quatre heures du matin nit ñi gars yi ñi ngi ci liggéey liggéey bu mucc ayib nag laa la wax liggéey boo xam ne résultat yaa ngi daanu comme pas possible mais tekk lañ def parce que lépp lañ bëgg a dóorandoo bëgguñu ko joxe par petit compte-gouttes te nag weddi gis bokk ci weddi gis bokk ci folklore bi amoon ci autour de Macky Sall ak i ñooñam nekkul ci jomaay gisu leen benn benn kuy illustrer comme yu Macky Sall yooyu gars yi réyoon làmmiñ yëpp daw nañ mbay pex ma yoroon làmmiñu mbë mbëpp mbëtt eh, eh, eh, gisatu leen ko seey borom làmmiñu mbët bi ba borom làmmiñu ndëpp yi bayu ndëpp yi ñëpp seey nañ jomaay amul fu muy dem am ay làmmiñu bayu ndëpp wala làmmiñu bar mboose wala làmmiñu mbëtt bu ñu yor micro bi di wax di tagg ay baaxumaa amul booy rupture total moo am ci réew mi rupture totale moo am ci réew mii le président Diomaye très strict bu génnee day def lu muy def delluwaat nekkul ci ay taxawaalu nekkul ci ay wër bu mu génnee même bu muy romb bu oto oto la dugg oto dem jël pont Émile Badiane ba gis ngeen ko dafa wàcc ci pont Émile Badiane ba comme un jomaay simple jomaay du ay affaire dëmm du jinne deful ay yëfu yàlla taxaw ci pont bi Émile Badiane woo waa ji waa ji kii wu mu ne ko mais pont bi dafa dafa nekk di détérioré wu mu ne ko waaw day détérioré ngeen dégg waxtaan bi ñu koy caméra ngeen dégg waxtaan bi bu doon Macky Sall ñu naan la non kenn kii warul wax ak Macky Sall non kii yonent bi moo war a ñëw bu taxaw ak Macky Sall parce que Macky Sall yàlla la yàlla yonent bi moo ko war a wax après mu transmettre ko nit yi ngeen yooyu yëpp amu fi. jomaay bu simple moo toog ci moo moo dawal ñu wàcc oto bi mu génn xool ne mais pont bi gaayen lii nan la fi mun a nan lañ ko war a mun a defee est-ce que pont bi day daanu non nañ jéem def beneen fële à côté nangam mu ne mu jël loolu dem jox ko ñi nga xam ñooy lijjanti loolu. loolu amul fi amul fi woon Macky Sall ngeen doon gis ak cortège yi nit yi gars yi di naaw ci kaw mel ni yàlla wuy ñëw jeex na jeex na nit bu simple fi ne nit bu bëgg Sénégal nit boo xam ne gisul ni am na lu yokk ci moom lu dul sénégalais yi ñoo ko jël def ko seeni i mindaan loolu la président Diomaye gis président égal mindaan mindaanu réew ma mindaan bu gën a rëy Sénégal mooy président mooy mindaan xam ngeen mindaan kër yi ay mbindaan yu naw lañ am jëwriñu mbindaan yi mooy président bi le président de la république du Sénégal mooy jëwriñu mbindaan yi képp kuy mbindaan Sénégal le président de la république moo moom moo la ko affé que moom la ñu jël ne ko kaay liggéeyal ñu suñu réew kaay kaay nga liggéey mooy ki ngay jël sa kër pour mu liggéeyal la sa kër kooku mooy sa mbindaan donc mbindaan bi gën a mag Sénégal moom mooy le président Diomaye Faye mooy mbindaan bi yéen nga toog di ko sant di ko jox damal nga nduggal ma fële damal nga toggal ma ceeb damal nga defal ma lii baleel ma fii ratal ma fee eh bu inondation bi xëccal ma ndox mi noonu non non kon kooku mooy mindaan bi amul leneen lu mu doon lu dul mindaan xam na ne nag moom mooy mindaan bi moo tax muy jëf-jëfi mindaan yéenay buur yéen yéen yéen a ko coiffé bu dee li ngeen fi amoon nag ñooñu ay buur lañ bu ñuy président ay buur lañ amoon ay buur ne ñun mosuñu am président ñu ngi doog am président li réyoon ci ñoom yépp dañ ko démystifier ñun tapis rouge ay kii buy dox pale fii la war a duggee ay kii nangam ak nangam yooyu yépp gars yi dañ ko loo xam ne esprit colonisé la dañ ko démystifier avec le président Diomaye c'est démystifié lépp lañ tegee ne le parce que mbirum àddunay kese la Occident bee ñu ko imposer incarné ko te bokkul ak suñuy valeur bokkul ak suñuy aada bokkul ak suñuy cosaan yooyu yëpp dañ ko démystifier waaye daal li ma leen di xamal mooy li Ousmane ko di wax di jëwriñu jëwriñ ñi wallahi dëgg la man de Ousmane wax yàgg naa leen ko wax musuñu woowante musuñu déggante amul numéro bu muy am bu ma amul musu ma ko ne Saliou musu musu ma ne Saba parce que man <laughs> lu ma moom mooy saa yu ñu waree wax maa moom dinañ wax ak fu war waxee donc anticiper ma dara yeewu ma di ko rechercher yeewu ma naan dama koy bind pour que man la moo laa musul am Ousmane Sonko n'a jamais reçu mon message Saliou moo gën a ndaw ci lu yàlla sàkk ci lang musu ko jot ci man mu ngi ci mission am maa ngi ci mission parallèlement ñoo bokk benn mission mi ngi fu muy dox maa ngi fu muy dox musuñu réeroo te musuñu déggante musuñu bindante musuñu waxante musuñu woowante amul numéro bu ma amul ci numéro numéro bu mu mujjee am sax am naa ko numéro bu mu mujjee am nii bees dàq nii am naa ko mais musuma jël numéro bind ci salut donc kon Euh, dama bugg chaque jour ku nekk ci man ak moom am liberté mu am liberté di liggéey ma am liberté di ko xool mu am liberté liggéey ma am liberté di ko suivre mu am liggéey ma am liberté di ko génne di wax te duma ko jaarale ci moom loolu sax mooy mbégte bi mooy mu muy déglu di xam ni waa jii xam na li may def te man kii man ak moom du ñuy déggante man ak moom du ñuy wax man loolu lay sentir ni samay mission mat na moom loolu lay sentir ni moom au moins ñu ngi vulgariser liggéeyam te kenn laaj ko donc li Ousmane sonk di leen wax nii fan yii di ci accentuer ñaari génn yëpp mu génn wax leen ne di ngeen kontaan bu ñuy waree rendre compte yéen la ñuy dinañ leen rendre compte ci lu yàggul dara te di ngeen bëgg te di ngeen seen xol dina sedd dama ne loolu tey bu ma yeewoo woo nañ ma ma gis à huit heures man maa ngi nelaw huit heures fii moom mooy midi foofu parce que sama numéro huit heures la def bu ma rappelé ña nekk foofu tamit bu ñu jël nañ suñu temps toog nañ waxtaan nañ gis naa wan nañ ma mais liggéey bi laa la wax loolu laa doo comprendre wax naa leen ko sax ne ah bon kon lii la Ousmane di wax fan yi mais gars lii kañ la sama xol commencé sedd man leen lii <laughs> bu doon bu doon bu doon comme nu gel di wax bu doon ay nax sax neex na sama xol dafa sedd aw ma lu doon am am envie pàkkar ñi fekk ci tëb mbëkk miir ba wàccaat ndax munuma gëm ni lii sama gars yi ndaanaan yi lii lañ nara tegal Sénégalais yi moo tax man leen nag may leen man leen nag loolu di ngeen ma ko may mooy danaa génn wax Sénégalais yi li ngeen leen di waajal mbaqus gi ngeen préparé pour ñoom parce que lii man dama bëgg au moins bu ko Sénégalais yi di lekk xam ni waxoon naa leen ni ñi ngi mbaquus mbaqus a ngi ñëw mbaquus a ngi ñëw lu neex lu raw tabaskee ngi ñëw seen kaw nouvelle yu neex a ngi ñëw seen kaw yu gars yi liggéey teg xëy na fu nekk nii ci pare ko lañ nekk ci boucler ko mais ak doole lañ leen ko indil nag ak doole duñ ñëw benn duñ ñëw ak ñaar xëy na lool noon loolu moom seen stratégie la mun noon nañ ko def benn munoon nañ ko def ñaar mais dañoo daj dañoo bëgg a dajal dóor ndoo leen ko xewul gu xéwal gi wër leen saawaan baawaan ngeen di sàllar ñi ko di fecc parce que lii gars yi liggéey nii man li ma gis moom liñ ma won buñ ma muri lay kiraay bi barke alxuraan sama xol dafa sedd moo waral live bii live bi bëgg ndëg ndëg mbëgg laa yeewoo tey yàllaa ma ci boole nag mais daal xam naa ni man moolaa maa leen garantir ne li leen Ousmane di wax dëgg la man moolaa Morgan maa leen garantir ne dingeen ngeen kontaan yéen ne yéen seen xol dina sedd dingeen ngeen bëgg lillaahi <laughs> wallaahi di ngeen bëgg seen xol dina sedd je suis super content super ému et satisfait et fier de ce gouvernement de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko très fier te dingeen ngeen bëgg te di ngeen ñëwaat ci man ne voilà waxoon nga ñu ko voilà waxoon nga ñu ko takk leen téere te bàyyi xel ci lii ma live bii jël leen téye takk leen téye di ñëw ne ma moo laa waxoon nga ñu lii ndekete gars yi lii la waajal Sonko du wax na leen ko man maa ko man maa ko tollanti lu neex a ngi ñëw seen kaw ay mbégte kese mi ngi ñëw seen kaw xëy na nag xay loolu le bonheur des uns fait le malheur des autres xëy na gars yi tamit ñoom dañ dem nañ listi xaar ko gis ne ah affaire yi moom bu neexee ci peuple bi dina metti ci ñoom moo tax ñii layam-layami ak di lappi-lappi xëy na dañ koo xaar kenn wanu leen moom mais lu ma gëm moom mooy xëy na dañoo listi xaar ni le bonheur des uns fait le malheur des autres comme xam nañ peuple dañoo nar a bëgg di génn di jubile di fecc di yuuxu di yaataayu mbég ñoom xam nañ loolu xëy na ñu xool xam ni ah affaire bi nar na metti ci ñoom moment bu sénégalais di bëgg mooy moment bu ñu leen di traqué ñoom di leen dugal ci biir di nangu xaalis bi donc loolu moo tax fu nekk nit ñi lappi-lappi di tëb ne dañuy jéem a déstabiliser mais dara du am mooy lu Ousmane di wax naan dara du am coow du jib bal du tàkk suuf du yëngu te sénégalais yi dañuy bég dama ne man maa ne du jib bal du tàkk suuf du yëngu te sénégalais yi dinañ kontaan dinañ bég seen xol dina sedd seen xol dina neex incha allah te yàggutul yàggutul léegi nag ñoom pare nañ lépp lépp lépp li ngeen di wax nii yëpp xam nañ lépp li ngeen di wax lépp lañ dégg li ngeen di wax lépp lañ dégg gouvernement bu ñu am nii gouvernement bu mën a déglu la bu mën a déglu bu wuteeg bu Macky Sall bi nga xam ni dañoo doon fatt nopp Macky Sall yi yi wër ñoom Marème Faye gars yi taxaw ñu pressé leen déedéet dañoo fatt nopp Macky Sall ñii dañuy déglu ñii ñoom ñëpp lépp la ñuy déglu lépp la ñuy déglu lépp la ñuy déglu malgré que nag am nañ seen stratégie ñii di dem makk ñii leen di ñaanal yàlla ñu yegg ak jàmm am ay kii ñoom ja ma jàmbal commencé créer ay affaires yooyu xoolal avion yëpp dem na ñaari avion fi des te lundi dañ day day mat gaa yi dañuy dem seen yoon. nu organise nu am na ñuy dem gars yi ñaata ñoo dem màkk ban kañ ngeen mës a gis ñu organise fi màkk mu calmer nii Sénégal. ñaata yoon la ñuy dem Màkka noon nekk ci ñu sànni leen ci parkingu aéroport ya tegal leen fa ay ay ay tant ñaata la fi seen papa yi ñu Macky Sall sànni leen ci tànt aéroport ya ñaata la ci yéen seen yaay yi ak seen maam yi Macky Sall sànni leen ci tant yi tàng ya sànni leen fa dem leen xool ba xam tey aéroport ba ca tànt yooyu noonu noon nekk Léopold Sédar Senghor foofu noonu euh, hangar googu hangar hangar lañ leen doon sànni ñi fi jotoon nekk si ne otal lañ leen yóbbu man de sama maam ba muy dem ca toro ca mettit ga la ko Macky Sall duggoon ca angaar ga ko sànnoon sànnil ko xayma ñu tàng jër mu ñaqutoo xat man sama maam dund na loolu te ba muy dem Makka Macky daj loo ko lu mburu dajul ci fuur fa la jaaree sax faatu fa yàllaahu ñi fi mujj nii ñii ñoom ñoom ñoom dañ leen yóbbu king fat lañ leen yóbbu king fat palace koo xam baadoolo du fa dugg ñoom foofu lañ leen yóbbu king fat lañ leen yóbbu sama maam googu noonu nga xam ne Macky Sall la ko dugaloon ca angaar ga ca parkingu aéroport ya ca tàngoor ga ay waay bu bu ma ko mënoon génne ci bàmmeel na ko maam kaay léegi màkka même bu avion ba yeexee sax léegi xam fan lañ la yóbbu maam mu ne ma ma ne ko king fat lañ la yóbbu tey bu ma ko mënoon ba ci leen non ba yóbbu sama maam même bu dee Pullman boobu moo yóbbu ko Pullman Taranga fa nga xam ni autorité yi fa lay dem di taxawal ma la yóbbu ko King Fahd ñii ñu ngi King Fahd ñii ñu ngi Pullman te leen di ñu dugal leen ci avion yi ña nga fa di lekk ba suur di naan ba di te fay ñu dara ñaari avion yi tardé leen di ñu yóbbu leen mu jeex public bi lépp jeex mus na fi am non mus na fi am ah musu fi donc comparaison n'est pas raison wër loo jéem a yàqee yow yaa fay des mais yàlla moom noppi na yàlla noppi na bu weesoo loolu ma ne leen gis ngeen gars tey tam waxtaan naa ceeg ndaanaan yi euh, yi nekk ci kër gu mag gi ci palais bi ñoom dañuy liggéey sax dimanche sama gars <laughs> Diomaye doo bàyyi gars yi ñuy noppali ko tuuti nag Diomaye moom amul heure de pose moo Sonko mais gars moo tax de Sonko ngeen ñaan man wax naa ngeen ñaan Sonko mu noppali ko tamit adduna dafa am noppali ko il faut ngeen ñaan Sonko mu noppali ko loolu moom du noppali de. dimanche sax dañ koy liggéey parce que ba <laughs> tey jii gars yi dimanche nii nii nii Sonko liggéey na leen ña nga fay di liggéey moom du taxaw moom président Diomaye ñoom duñ taxaw amuñu mardi amuñu mercredi lundi ba dimanche dañ koy liggéey lundi ba dimanche mënuñ toog seen kër am na lu ma doon expliquer c'est bien ah c'est bien euh, damay xool rek nu ma koy waxee quoi damay xool nu ma koy waxee gars parce que il faut dafa wax day du loo xam wax ko du tax liñ la wax tam nga wax ko stratégie la rek man tam il faut may utiliser sama bopp il faut may utiliser sama bopp bi quoi euh, am na yoo xam ne ci ay code lay dox am na yoo xam ne day leer am na yoo xam ne tamit euh, junj lay doon am na foog ma réfléchir man tamit foog may réfléchir baax a baax a baax a baax a baax mooy waruma génne lépp lu gaa yi di waajal ak lu gaa yi di nar ndem waruñu wax di leen fen dëgg rek lañ leen war a wax donte nag dañuy rey mais gars yi dafa am benn sujet tamit bu ma wax waxtaan naa cee gars yi tey sax benn sujet bu ma wax ko gis nga gis nga yi journaux yi <laughs> journaux yi comme bii ngeen di gis nii ak mu ma jàmbal bi journaux bi journal bi Racine Sy moo ko moom l'info Air Sénégal clou au sol deux cent quatre-vingt-douze nangam nangam Racine Sy moo ko moom Racine Sy bu King Fat Palace boo seetloo journalam ak journal ma Madiambal Diagne comme ne leen di wax approche boobu ñu am ak Amadou Ba et tout gang boobu ñoom dañuy ci manipulation la ñu nekk quoi Amadou Ba ku ne dambal Diagne ne Amadou Ba Racine si gars yi dañu yor seeni journal quoi journal bi Racine Sy moo ko moom l'info ñoom war naa la ne la ancien ponte du du régime euh, de l'APR ñoom ñoom moom quatre-vingt-dix pour cent des journaux wala ñooy financer journaux yi te duñ fina duñ wax mukk ñoom duñ tiitre mukk seen ñaawteef ñoom liggéeykat yi euh, ak li liggéeykat yi di dund foofu maintenant comme nu ma leen ko waxee gars yi nalawuñu gis naa leen des fois gars yi dañ may indil ay dossier ne Mollah Mollah euh, kii nii dafay doon yàq Sonko tey mi ngi fii kii da doon yàq Sonko comme nu ma doon wax ak gars yi tey rek quoi ma leen waxee ñu ne moom Mollah Mollah waaw mu ne ma gis nga gars yi est-ce que xam nga ñaata nit ñoo nekkoon APR nekk ci administration bi gars yi repéré leen yor seeni i yor seeni tour seeni sant seen matricule seen lépp yor nañ ko la laa am ñu ne moo waaw lépp yor nañ ko moo Mollah Mollah bu ñuy am information sax tooguñu ci nguur wax waxuma la ñu toog ci nguur tey boo demee université fi nga xam ne mooy kudd mais directeur bi dafa toog ci moins de trois jours ñu wax la ay emplois fictif yëpp <laughs> ngeen gis ko emploi fictif yëpp ñu doon fay ñëpp tour yeeg yëpp gars yi pale noonu la ñuy yoree tur yëpp y a plus de neuf cent et quelques jàpp ma chiffre bi yoo xam ni waa APR la ñu ngi ci administration bi amul kenn ku ci raw déglu leen baax de amul kenn ku ci raw koo xam ne raw na leen ñu ngi ak bi neuf cent et quelques doom postes yoo xam ni occupé par waa APR gars yi ils les ont à l'œil mais nee nañ ma ku ci nekk dinañ la wàcce ci waxtu wuñ la war a wàcce waaye ku ci nekk luñ la soxlaal dinañ ko récupérer ci yow ba balaa ñu laa wàcce muy muy information muy ay données personnelles lépp dinañ la jël ba ñàcc la ba mu def ba am ci yow lu dëgër këcc ñu doog la wàcce mais ñoom nee nañ ñu jox leen confiance ni yor nañ neuf cent et quelques doomu aadama yoo xam ne waa APR lañ yi fi liggéey yu salte yoo xam ne du ñu tëb rek ne leen wacc sànni racine si boobu ca la bokk dañuy yor lépp document bi dañ ne racine si tak dafa liggéey rek bolore racine si détourné na ay milliards bu mu nekkee post racine si ba ba yóbbu poste kaw racine si IPRES détourné na fa ay milliards yóbbu ko kaw Racine si bu mu duggee kii euh, King Fahd Palace détourné na fa ay milliards yóbbu ko lépp lañu ñu yor donte yi ba mu ca mat sëkk. ba xam ne limon bi nal nañ ko ba mu jeex takk wiccax ko ba mu set wecc wecc wecc wecc wecc yor dossier yi dëgër kët ne ko tamax jamal kooku seey bu paree nag justice la wuy ji ñu jël dossier transféré mu wuy ji justice. donc kenn ci ñoom rëccu leen kenn xam nañ chifre bi bi nekk ci ci administration bi boo xam ni Macky Sall la ko fi bàyyoon ñii liggéeyal Macky Sall yépp lañ yor yor nañ chiffre bi exact exact yor nañ chiffre bi exact ñooñu ñëpp ñi ngi leen ñi ngi jël seeni dossier ñi ngi koy dajale dinañ ko transmettre justice dinañ leen dàq ñoom ñëpp ñëpp kenn du fi des dinañ leen dàq justice dina leen traqué loolu moom xam ko lool la leen sonk tam di wax naa leen bale dinañ bale réew mi dinañ leen bale <laughs> dinañ leen bale la leen wax de ñi ne ci administration bi ñëpp gaa yor nañ liste bi neuf cent et quelque la ñoo fa des jamono ji ñëpp la ñuy bale benn du ci des benn bu gën a ndaw du fa des dinañ leen bale ak seeni dossier lépp dem tuuri ko justice dañ leen bale sa gas suul de dañ leen bale tuuri ji ko justice justice jékk ci mbalit mi woo leen mooy lu fi waaye puub di ko buub waaye alalu réew mi lu ci waaye buub di ko puub dëgg leen de dama ne fii lu fi waaye puub yàqu réew di ko buub waaye lu fi waaye buub ci alalu askan warax ko di nga ko puub kooku moom takk leen ko téere soit dinañ buub seeni puub wala la ñu buuboon ci alalu Sénégal dinañ ko puub ci bëccëgu ndar kaam ñaar yooyu moom day am par force kii dina buub ay puubam kii dina puub dina dina euh, buub euh, lu mu buuboon dina ko puub ñaar yooyu ñoo fi am ñi buuboon alalu askan wi dinañ ko puub bëccëgu ndar kàmb waaye ñu fi puuboo nit ci bëccëgu ndar kàmb mooy ñi nga xam ne ñoo rey lu booy tëj lu booy yi fenal booy yi sosal booy yi di tiire booy yi ñooñu dañu fee dinañ ko buub ñi fi jëfee sal bulo yépp ñooñu dañ fee puub dinañ ko buub ñi fi santaane yu bon ñi rey xale yi ñaawteef yëpp ñu fi puub yëpp dinañ ko buub waaye ñu buub alalu réew mi waraax ko dinañ fi puub ca palais de justice dinañ fa puub dégg leen wax ji de buub say puub la wala buub alalu réew mi puub ko fi ñu buub jox justice donc loolu na ngeen ci dalal seen xel nee nañ ngeen dalal seen xel amul benn intrus boo xam ne bokkoon na APR wala wax fi lu ñaaw wala jëfee fi lu ñaaw ku leen rëcc man bañ ma dóoree liste ba laa ci noppi bañ ma waxee liste ba na ma est-ce que xam nga ni neuf cent xaw ma quatre-vingt-sept xaw ma damay bañ a dama jàpp ma ko parce que waxtaan bi dafa sori woon man résultat yi laa doon xool li ñu ma doon woon lu ñu liggéey ñu ne ma plus de neuf cent et quelque wax ma chiffre exact neuf cent quatre-vingt-sept ou quelque chose ñoo est-ce que Mollah est-ce que xam cent ni 987 xaw ma ñoo fi nekk waa APR ñu ngi ba léegi ci administration man leen ah toll na loolu ñu ne ma waaw liste baa ngi fi kenn raw ci lu gën a tuuti même laxas douze bu la ko Macky Sall joxoon sa tur mi ngi fi waaye nag Mollah du noonu lañ ko defee duñ ñëw rek buddi leen sànni leen ñu bu alal ga daw kii dàqe déedéet am na ñoo xam ñu ngi leen fa bàyyi et on les a à l'œil racine si ci la bokk dañu ne ma yow Mollah yow Mollah yow est-ce que yow yaakaar nga ni mun nga ñëw gën a xam Racine si nga la ah <laughs> yaakaaruma ko de ñu ne ma voilà moo tax nga war a dal voilà est que yaakaar nga ni ñun nekk nañ ay mandikat yu san sànni suñu live nii jël sañu bopp jox ko Racine Sy quoi mu paquete ñu saax-saaxee ñu na <laughs> wala ah yaakaaroo nga ñu ne ma voilà moo tax nga war a am ci ñun yaakaar mu laal looy bandi bandi bandi ak nu nga amee mayen sa mayen fiite ngay réfléchir ba septième ciel di wàccaat noonu la ñuy doxee saa yoo yéegee septième ciel dañ ñun dañ la fay gis ngay jéex ngay jéexi mbalit ba ñun ñu ngi toog di xool kon bul jàpp ni am na fu say gëstu yóbbu ba nga xam fa te ñun xamuñu fa waaw maanaam xam nañ bu baax xa baax a baax a baax ku ci nekk la nga jëfe ku ci nekk la nga def ku ci nekk la fi liggéey ci lu salte lépp xam nañ ko lépp lépp xam nañ ko wàcce nañ fi ñu bëri ñoo xam ni demoon nañ ba foog ni du ñu wàcc wàcce nañ fi ñu bëri ñoo xam ni demoon nañ ba foog ni duñu wàcc moom ci la sama gars yi gars yi graawee bugguma ci sori dama ne wàcce nañ fi ñoo xam ni wallahi billahi foogoon nañ ni duñu wàcc ndax lu leen fa gars yi bàyyee woon ñu xaw a def tàkk relax nag ah bàyyi nañ ñu fa di ñëw heure di ñibbi heure te musuñu ko def foo leen woowoon réunion foo leen woowoon ah, attends maa ngi ci réunion mais gis nga bu jomaay ñëwee ba léegi di wàcce ñeneen ñi bàyyi leen fa mais gars yi di ñëw heure di dellu heure réunion amatul dara amatul foo leen fëggee ñu ngi seen bureau toog foo leen wooyee alors maa ngi bureau ba waaw naa nga waaye foog ne nag ñoo toog ba am assurance ñu leen fa donget sànni nee naa leen wax naa ci ñaari DG ñaar ñaar yoo xam ne demoon nañ ba amaat confiance toog jël seen temps gën a nekk à l'aise toog jàpp seen self ne wax nañoo ay nit yu jege Sonko Sonko jot na information yu gars yi ñu ngi liggéey ñu ngi koy doxal ci temps amul problème am ñu leen gëmloo sax ni kenn du leen laal dernier remaniement bi lañ ne leen cappax sànni ca xaj seppi sànni ca xaj kenn ci ñoom moo ma wool boppam na ma waa mi sama waay li nga mën a wax dëgg la de nga ne gars yi wàcce nañ ma ne ko si <laughs> ah, la waxoon kenn ci yéen du rëcc kenn ci yéen du rëcc yow gars ñëw pour changement ngeen foog ne dinañ leen fi bàyyi. gars liggéeyloo nañ la ci moins de deux mois liggéeyloo nañ la liggéeyloo musul liggéey ci jamonoy Macky Sall nga bugg a wane ay résultats di rey sa bopp mais jëlee nañ la fi. gis nga gars yi ñoo la gën a intelligent ci deux mois liggéey nga fi loo xam ne mosoo koo liggéey ci jamonoy Macky Sall douze ans ñu liggéeyoo la ko ci deux mois ngay bàyyi ay affaire taxawaalo boobu ngay ñëw sa bureau à à l'heure di dem à l'heure di pointé def loola loo xam mosoo ko def jamonoy Macky Sall benn directeur bu doon pointé benn directeur ñoom ñu ñëw tegal la pointage ngay pointé ay heure di nekk sa bureau di fa liggéey ba x nga génn di ñibbi ay vingt trois heures ah mais dàq nañu noonu lañ koy defee ñoom ñëpp kenn du fi des kenn kenn du fi des kuñ fi toogal rek tiital loolu nag du yéen laa koy wax dama ne waa APR yi képp ku toog fenn fuñ la jëleegul tiital gaa yi ngi sa kaw de gaa yi ngi sa kaw de kooku moom man maa leen koy bàyyee di leen ko may ndimbal la dama fi waa Pastef bàyyi ku fi Ousmane Sonko Diomaye bàyyi jamono jii pour l'instant gars yi ñu ngi sa kaw de ils billahi ils t'ont allé ci sa liggéey ci sa lépp ci jamono jooju ñu ngi ci yow enquête deux cent pour cent ñu ngi ci yow enquête deux cent pour cent bu ñuy tënk sa dossier ba mu pare ba takk dañ lay dàq kenn kenn nag déglu leen bu baax dama ne kenn du fi toog neuf cent et quelques yooyu noonu kenn du fi toog ñii dinañ daanu le premier ñii dañuy daanu le dix ñii daanu le quinze ñii daanu le vingt ñii daanu juillet ñii daanu août waaye kenn du fi des kenn ci ñoom du fi toog ñoom Ousmane Sonko fas yéene wuñ jiite réew mii ak benn doomu Macky ak benn élément wu Macky fas yéene wuñ ko nekkul seen xel nekkul seen programme ah, nee nañ am nañ compétence yi am nañ nit yi. am nañ ñu leen mën a remplacer am nañuy boromi xam-xam am nañuy kàngam du ñu xeex mukk réew mi di jël ñi àndoon ak Macky Sall di leen fi bàyyi. loolu moom ñoom xamal nañ moom nee nañ am nañ ressources humaines bi am nañ nit yu ko mate am nañ boromi xam-xam mate am nañ ñi seen loxo set ñu ko mate am nañ ñu jub ñu ko mate am nañ ñuy jubal ñu ko mate am nañ lépp. maanaam yàlla may na leen équipe bu mat sëkk soxlawuñ benn benn rampant wala benn rampaaru Macky ci seen équipe soxlawuñu benn doomu Macky Sall wala footballeur am wala élément am loolu moom ñoom xamal nañ ma ko donc amul kenn koo xam ni da xam yéex a jóg fi am ak teel a jóg amul kenn koo xam ni dina fi nekk loolu moom man maa leen ko assuré neuf cent et quelques yëpp dinañ dem xëy na ñii ñooy njëkk jiitu ñii ñii ñooy njëkk a jiitu ñee mais dinañ dem incha allah loolu maa leen ci dalal seen xel saa su ne rek comme nu ma leen koy waxee lu ma leen di wax da koy jël note parce que man moom yàlla bindee na moom ma nekk ab rappeur bu may xeex di kaas boobu Sénégal xeex be kaas bi front bi bëriwul fi woon lu ma wutaleeg yeneen liveur yi mooy ay liveur lañ man rappeur laa lu ma wuteeg yeneen liveur yi mooy ci jamonoy live lañ leen xam ci maanaam ci xeex combat citoyen man dama xeex avant maanaam defarkatu portable créer live donc bokkul de ñoo bokk nag fu ñuy live mais dama ne man bu may rab di kaas di yor mic nit yi wër ma may wax ak ñoom di conscientiser boobu amul benn liveur Sénégal benn liveur juddagul Sénégal boobu man maa ngi yor mic di conscientiser di dugg ci ay oto di concert muy fees dell alliance di fees dell ci kaw ay jeunes yu taxaw am doole di yuuxu ma leen di conscientiser di wër def Tamba def Sénégal ba mu daj yëpp boobu amul benn doomu aadama Sénégal live sax amuloon donc man ku ma jaxaseeg liveur rek da ngay da nax sa bopp du ma liveur rappeur bu jël samay aar la di ko transmettre ci li fii donc kooku doon wax yor micro di wax dëgg bu ko ñoro bu ko saf di génn di xeex bañ koy damm boobu liveur amul Sénégal kooku mooy waxaata ak yéen du wax lu neex nit wutul lu saf nit ragalul nit wutul ay vue wutul ay like jaayul lu mu yor dafa gëm boppam bu laay bi jeexoon day delluwaat ci lu mu nekkoon kon man nekkuma di wut lu leen neex war leen mën a fen war leen mën a wax lu dëgg war leen mën a lan laa ciy jaay xam nga bu dee dafa am looy jaay ngay fen pour jënd pour ñu jënd daqaar gaa ngi daqaar gaa ngi saf na lem saf na mango saf na ko yaab dangaa bëgg a jaay daqaar gi loolu moo tax ngay fen ngir daqaar gi jar bisaab baa ngi am na naanaa am na suukar am na kii suukar vanille bisaab baa ngi yaa ngi fen pour jaay man jaayuma dara <laughs> lu tax ma war leen fen jaayuma dara du ay vues du ay like du ay j'aime du jaayuma ay vidéo donc man jaayuma dara jaayuma tous rien nada donc soxlawul ma leen di fen parce que bu doon damay fen dafa lu may jaay pour ma fen ci la may jaay pour mu jar jaayuma dara moo tax musuma live ne leen aimé leen musuma live ne leen like leen musuma live ne leen partagé leen musuma like ne leen jël leen ko tasaare lijjantiwuma loolu kon jaayuma tous dëgg moom a ñor ma am ñu nekk ci réew mi ma nawloo leen xam ne suba dama war a jàkkaarloog ñoom man bu may rab di wax boobu jomaay doonagul dara may conscientiser ba conscientiser naa seen président bi nii seen président man nee na man rappeuram laa dama ko conscientiser te ak dëgg seen président da doon toog université di déglu sañuy sound di quinze boobu xamul sax ni dina sa doon dara boobu Pastef amagul ci àdduna seen président toog ñu koy ñun ñoo ko doon conscientiser di ko wax live nu mu mel autoroute à péage wooy hôtel auto gaspillage wooyaay tabax seeni tunnel ñun la tous karañeel talampi leer dund gii di gën a cher defar defar porte millénaire ñu ñu gën a bëri ñi galère foog ñu dëggal suñu ko dëggal ñu nag ñoom ne Hitler de Gaulle sa président dama déglu ma koy ma koy xartal la ko jógal xeex jógal xare boobu sa président bi sax man maa ko doon conscientiser donc àdduna dem ba tey mu doon président kooku kon sama nawle la dama war a taxaw ci dëgg ba mu xam ni bu toogee xam ni Mollah mii la toogal te Mollah mii yàgg na ma conscientiser ma toog sama néeg man kese sama chambre université di ko quinze muy yokk ci man xabtal di ma xabtal di ma yokk Pastef pour ma bëgg sama réew ñun boobu kenn liveur amul Sénégal kenn kuy wax amul Sénégal bu front amee ñun la bu xeex amee ñun la bu dajaloo amee ñun la bu génn ci mbedd amee ñun la fu sénégalais génnee ñoo la génne bu génn amee Sénégal front am senegal xeex am Sénégal dama ne ñun ñoo ko créé yaa naa maar bu weesoo suñu paa yi ñun ñoo génne booy yi ci mbedd yi ñun ñoo génne booy yi ci street bi ñun ñoo dajale booy yi ci mbedd yi naan leen def leen nii naan leen fépp leen naan leen bage leen xeer yi naan leen dóor leen <laughs> donc ñun soxlawuñu lu neex nit ba di ko wax lu ko neex déedéet lu ma la wax danga koy takk téere dem nga weddi ko gis ñun avancé nañ de moment bi ngay naan moo laa waxoon na ma ko man dem naa maa ngi ci feneen pour indilaat la leneen tegal la fa rek xale yi di werante di weddi mag yi di di jëfru xale yi di werante di weddi mag yi di jëfru xale yi nekk fi di waaye wax na dëgg waxul dëgg yërim génn ak lu muy mën a fen bind livre ba mu jeex tàkk ne moolaa mii lu mu la wax dëgg la takk ko téere dañ koy waxtaanee sax sa pale ba dañ koy waxtaanee sax kër Marème Faye sàll dañ koy waxtaan moolaa mii moo jaaxal Macky Sall moo toog di kàjj bunt yi nan fu kii jëlee lii mu bind ko ci livre te foofu lay fréquenté te dem gis Macky Sall naan mais moolaa mii mooy kan kii fan lay jëlee li muy wax nii nga dégg ko ci moom dégg ko ci ki euh, bërki dem ki génn nii capitaine euh, numtu le commandant la euh, bu bind livre bi ne même les renseignements même les renseignements spéciaux moo laa mi moo leen gën a renseigné te kooku moo yoroon école gendarmerie nationale boo yëpp moo leen doon formé nekk fi le colonel Ndaw Abdou Aziz Ndaw bind livre am ñëpp xam ko ci crédibilité am mu ne sa moolaa la moolaa nii nii moo gën a informer les renseignements spéciaux ñoo xam ne spécialement dañ leen teg pour ñuy renseigner te xaw ko xamuma sexaluma ko lem musuma ko gis musuma ko dégg donc kuy werante samay wax rek da nga di gone samay wax da nga xamul li may wax waaye li may wax fa ko jëmale dañ koy xam ci ki may waxal dina ko xam fi ma ko adressé dina ko xam ñooñu nag ñooy yëngu léegi nag comme nu ma ko waxee du ma wax ak du ma tonton teg ñu nekk suuf sama wax bu nekk dafa am lu mu visé sama jëf yëpp day day visé c'est stratégique man dox ku may nu may doxee stratégiquement laa doxee colonel Abdou Aziz Ndaw moo ko wax ci Séné euh, euh, télé euh, télé Youssou Ndour bi <laughs> ba journaliste bi di reetaan nga mais sa booy la booy la booy canadien bi booy bi nekk Canada bi moo laa mii booy moo mais il est plus renseigné que les renseignements généraux que les renseignements TFM la ko waxee spéciaux ba journaliste <laughs> ah mais moo laa mii moo yee déggoo lu ma pare na dossier ba teg feuille am gars yi ko ko tak tak ba mu mu war a changer pour pour pour yóbbu élection yi lépp ñu toog def seen réunion waxtaan ne dañuy jël élection yi arrière ko dugal Sonko prépare ko def dialogue def lépp dossier bi dañoo pare rek ma jot feuille bi karaj lire dossier bi ne leen samedi dina am Macky Sall dina génn day arrière élection yi live ci saase dina wax jaloog dina woote dialogue dina ko arrière pour jéem a xool nu mu dugalee Sonko dina ko nangam lépp ba mu jeex tàkk doomam Amadou Sall dégg live bi daw dem gis ko moom ne ko mais président papa mu ne ko waaw mu ne ko mais Mollah li may wax lan la nee na yow da ngay génn samedi. Amadou Sall ne papaam yow Mollah nee na da ngay génn samedi dangay ngay arrière élection yi da ngay da ngay woote dialogue waxtaan bi pour indi Sonko. boobu wax boobu maa ngi wax dialogue yéen a ngi ba mu naan ay Sonko bu ñëwee pour mu ñëwaat nangam ak nangam ñii di wedd ñeneen non non bu mu ñëw même ñëwee nag ñii nangu ñii ñii non day fen day bu mu ko waxee papa moom Amadou Sall na ko moo wax loolu moo ne ko day fen léegi nag Amadou Sall doxaat dem ci ñi gaay mi ne non moo laa day fen de sam papa na génnul samedi papa ji de moo soog costume génn samedi li ma waxoon feuille bi yëpp moom la jël di récité dialogue na dialogue national arrière élection defaat lii mu indiwaat processus électoral bi lépp A ba Z man fooy balaa liir mais xam nga papa ji du wax doom ji naan ko moo laa sama fooy bala sàcc déedéet papa ji renseignement généraux lay woo chef bi ki mu ki fa jëlee saaga ndayam ne ko mais nan lañ def ba sama fooy bi fooy bi may waajal samedi te waxaguma annoncé gu ma waa ji xam kañ laay anoncé ak lan laa war a annoncé kii nu mu def kooku remonté renseignement généro yi xool numéro yi amul ku woo moor ku mu jaar fan la jaaree fan la dossier bi jaaree mais noonu lay demee te loolu lépp dama koy yëg dama yëg ni président bi woo na chef des renseignements généro colonel ba colonel ba woo gars yi gars yi dem woo ñuy xool li lijjanti boobu man maa ngi ne teg ne salaw mais li ma wax lu ma lay wax da nga koy gis lu ma la wax da nga koy gis lu ma la wax da nga ciy daj loolu rek moom moo ma ñor amul leneen amul leneen après boo paree nii nii laay demee naan sama café dox sama dox génn ci mbedd mi chaque jour ñëpp ñuy dundee Canada xam na ni man chaque jour maa ngi si street bi fu may live ci mbedd bi leen di gis Mollah Mollah Mollah big up photo Mollah Mollah ñu jël photo Mollah Mollah star la Canada star star buy dox di màcc mbedd yi la star la Canada ba mu daj amul sénégalais bu ma fi gën a siiw Canada amul benn sén même dama ne même le l'ambassadeur du Sénégal maa ko gën a siiw maa ko gën a siiw bu génnee kenn du ko foto kenn xamu ko bu ma génnee sama buntu kër boobu fu ma jëm sénégalais bu ma gis maire góor jigéen mag ndaw di nga daw ñëw di nga daw ñëw taxaw di nga photo di nga snap di nga vidéo di def yépp ñii dañuy gaare di dawal seen oto taxaw ci tali bi freiné pep pep pep tubaab bi di xool parce que xamuñu fa ay ay ay corne ndakate man la ñu woo ay eh, Mollah ñii génne seen bopp jigéen góor Mollah Mollah mais Mollah ma gaare ñu photo loolu yàlla moo ma ko def nit mënu ko dindi yàlla moo ko def donc loolu ma xam ni yàlla moo ma ko def war na tax bu ma waree génn di leen wax rek dëgg kese dëgg kese bés bu ma bàyyee dëgg gii commencé di fen bés boobu laay cólle ne tant que maa ngi sax ci dëgg ji nit buddi ma sànni du yomb donc les li ma leen di xamal daal mooy Ousmane Sonko li mu leen di wax ak ay dëgg di ngeen kontaan di ngeen bëgg seen xol dina sedd liggéey gi rafet na yanu na maanaa am na solo te mi ngi seen kanam di wax bépp patriote dalalal sa xel ci boo gisee nit jëlee guñ ko fa na nga dem ba xam ni kii ci ñoom la bokkoon da doon saaga Sonko jëlee guñ ko fa noonu lañ ko xamee ñoom ñoom ñi ngeeg liste bi te ñiñ fa bàyyi nalawuñu du lépp nag la ñuy wax chaque jour dama leen koy wax du lépp la ñuy wax ñañ fa bàyyi nalawuñu ko ndax man dama ci xam ay DG yu bari yuñ fa bàyyi yoo xam dañuy may gaayanoo mais man chaque jour dama leen di assuré ni munuma daara luy tax nga toog fi man moo laa moor gën bëri na DG yu liggéeyal Macky yu fi toog yu ma gaayanoo ci yàggul yàggul buñ ma gaayanoo matul deux mois trois mois je le o haut et fort ko nëbb parce que sénégalais rek ñoo ma ñor ñoom laa war a rendre compte amul keneen ñu ma gayenoo yàggul te génneeguñ leen fa di ma woo di ma nemmeeku gaayanoo man mais lu ma leen di xamal mooy seen toog fii garanti ko munuma ko amuma ko te yàlla mayuma ko ku ma gaayanoo nag ma gaayanoo la ku wax ak man ma déglu la waaye awma possibilité toogloo fi benn du awma pouvoir bi awma possibilité toogloo fi benn nit une seconde loolu nay leer pour ñu teel koo xam parce que seen ñëw bu ñuy ñëw ma am ne dañuy buggu xëy na ma defaan leen wala ma waxal leen pour ñu toog fii wala nangam ak nangam non man awma ko awma pouvoir boobu nay leer waaye lu ma leen xamal mooy loolu lépp tiit moo leen ko indil ñoom ñëpp a ragal ñoom ñëpp a calculer seen tëb Abdou Karim Diop ak baaxum ak maaxam ak gis nga tekk ak tay gi ñu def ni dal gii ñu def tek parce que alxuraan ñoo la gën a xam ni dañ fiy jóge waaye nag ñu ngi def lu ñu mën seen kéemtalaay kàttan bu bañ fi jóge ci mystique ñoo ngi koy jéem ca négocier ñoo ngi koy jéem ca jéem a jege parce que mënuñu jege sonko ci ñu jege sonko ñu jege leen wax ak ñoom pour ñoom ñu wax ak sonko ñoo ngi koy jéem maanaam ñi ngi jéem pexe bu ne tooguñu na tooguñu tooguñu de ñi ngi jéem sax liggéey ci temps bi ndaw bi pour mun fi toog donc loolu tamit na ngeen ko xam kenn ci ñoom ñi ngi doubler effort pour toog fi ñi ngi waxak ay nit pour ñu wax ak ay nit parce que man nit sax jóge na fi bu ko jox benn waay xaalis autour de Sonko ñu ko jege mu nekk DG bugg fi jóge mu dem gis alentour Sonko bëgg a jël ay millions en tant que DG financé ko ñu wër Sonko yaakaar ni ñooñu am na kenn ku ci mën a dem wax ak Sonko pour Sonko bàyyi ko fi ba mu ñëwee di ma jox information bi ma ne ko boo ci dugalee sa xaalis da perte mu ne ma non assuré na ma non ma ne ko sawaay da fi jóge ma ne ko waaw duñ fi jógee xaalis boo joxee dinañ ko lekk te Sonko dina la fi jëlee te Sonko dëgër na bopp xeetu dëgër bopp boo xam ni projet bi la jiital yaayam sax bu ko waxoon bàyyi fi kenn du ko fi bàyyi mu ne ma ma ko billaahi kon Sonko noonu ma ne ko lu raw loolu na bopp benn xeetu dëgër bopp boo xam ni boo demoon ci yaayam yaayam ñëw ñaan ko danaa ko unhu unhu unhu ba yaayam dellu mu dàq la mu ne ma ma ne ko billaahi noonu la mel de yaa waa ko bindee noonu woow la na dëgër na bopp projet bi rek la gis Sénégal la ko ñor bëggal na la jox leen ay résultat bëggul ko ko mere liggéey googu moom sénégalais rek la gis gisul keneen boo demoon ba ci yaayam wax ak yaayam dem ci sëriñam wax ak sëriñam dem ñooñu ñëpp buñ ñëwee dana leen waaw waaw bu ñu delloo mu def nu mu war a def kon nag boo fa dugalee sa xaalis da ngay perte da lay dàq de Mayama ne ko si dalay dàq de Sonko dalay dàq de dàq moom gisuma loolu loo mun a def bu dul dàq daq moom lañ ko def moom dinañ la ko def de wallahi dàq nañ ko billahi daq nañ ko barke alxuraan dàq nañ ko wóor na daraja yi lësi dàq nañ ko ma nga këram toog bu ma gisee muy def passation de service bu xool photo bi ndeysaan <laughs> sa waay waxoon naa ko lii de nee naa ko xaalis boo ko dugalee dañ koy lekk boo gisoon yaay sonko sonko day bañ boo gisoon maamu sonko day bañ boo gisoon nijaayi sonko ngeen ànd yéen ñëpp ak yaayi sonko ak sëriñu sonko sonko day bañ <laughs> moo xoolee ba gis ko ndeysaan passation muy joxante loxo ak discours bi ma seetaan vidéo bi ma waxu mag du fanaan àll day guddee nii laay def di wax ak sénégalais des fois non day fen day ak dañuy tourné gis marto bi dal seen ñoom taal si la dal wuy sama ndey seen bopp yoo toj nag ah moo laa waxoon na ma toogee ne la man après passation de service ba léegi woowu ma de tey sax ah, sama xel joxoon na ma pour mu envoyé ko ma ne ko salu mais naka mu gaañ DG <laughs> ndem nekkatu ko nag ah DG <laughs> foo toll ci mbir looy def xane xëy na dina wax lu muy def parce que bañ koy fa jëlee moom ñëw na woo man ah, man kii laa xawma lan man du ma sommee kii man gaa jëlee nañ mais du ma ah, <laughs> ma ah d' accord d' waaye daal lu joxe xaalis perte négocier perte yéen bu ngeen amal affaire dara yitte lu ko yukkul sénégalais yi projet sénégale yi kenn dëgër na bopp wow la am ni konkorong sonko du dégg du dégg jat gaynde gu dul dégg jat la lu ko ñor mooy sénégalais yi projet bi réussite totale sonko dina mandé carrière am nii ngeen foog ni sénégalais yi jaay seen bakkan rayante ngir moom sonko jël pouvoir bi di fo <laughs> sonko lekkatul naanatul nalawatul ndax pour satisfaire ñii ñii ñii ñoo ko teree nalaw ñii ñii ñii toog nii ñoo ko teree lekk ñoo ko teree naan ñoo ko teree nalaw ñoo ko teree tax toog ci ay soxnaam ñoo ko teree toog ci njabootam billaay ñii ku ñu fitnaal dootoo lekk dootoo naan ñii ñii ñii ngay gis nii ku ñu teg cog dootoo tal sa ndey dootoo tal sa baay soo ko xam na loolu xam na lu ñuy daj ak lu seen ndey yi daj ak lu seen baay yi daj ba teg ko fi xam na ko bu baax a baax te ñaanul yàlla bés ñii weddi ko ñaanul yàlla ci dundam bés ñii weddi ko moo tax talul lekk talul naan talul nalaw talul jabar talul doom ma nga fa talul yaay ma ko ci teg H24 H24 ñii defi buñ ko lancé <laughs> ay ay Sonko xam lu ko ñii teg ñii kuñ teg sot kuñ teg sot dee lay gënal dund nii nii sama gars yi kuñ teg choc billaahi ñaan yàlla dee moo lay gënal nga dund di am gàcce ci seen kanam <laughs> ku xam sénégalais yi rek <laughs> buñ la sase dara bu yaay ñëwee sax dama ragal nga këdd ko te doo ko yëg bu lañ buñ la sénégalais sase dara bu yaay ñëwee ak yaakaar gu ñu am ci yow bu yaay ñëwee boo deful ndànk bunt bi ngay tëj ne ko bëgguma ko gis Papa Niang bëgguma la dégg <laughs> man na sénégalais kuñ teg choc di nga xam ne ñoom rek koy dund keneen new fii loolu nag Sonko xam na ko xam na ko bu baax a baax a moo tax sax bu génnee rendre ma compte rendre duñ ko ko sax laaj rendre ma compte journaliste rendre ma compte politique man sénégalais rek ko ma ñor sénégalais rek <laughs> ak xam luñ ko def ak xam fuñ ko ak xam lu koy xaar ak xam fuñ ko yóbbu ak xam luñ ko sas tàllu dégluwul kenn dégluwul kenn kenn déglu ko du politique du journaliste du kenn sénégalais yi ñoo ko tere lekk tere ko nan ñii tere ko sax toog ay njabootam walla nekk ay soxnaam sénégalais yi ñu ñoo ko ko xañ kon moom xam na bu baax ñii fuñ koy xaar xam na bu baax ñii ci luñ koy xaar moo ko ci teg rek <laughs> voilà moo tax jomaa it nalawul jomaay nalawul de barke alxuraan nalawul lekkul naanut nalawut lekkut naanut kon nag gars yi comme nu ma leen ko waxee rek mbégte moom di ngeen ko am incha allah ngeen concentré wu sur l' essentiel focus leen sur l' essentiel yaakaar bi lépp ki ngeen ko dénk kan la laaj leen ma kan la du Jibi Gueye Ndiaye du du du Mollah Morgun du keneen seen yaakaar yëpp ginaaw yàlla yaa ngi nañ ko wékk ci soo Diomaye yi donc rek boo leen amee ay contre laaj leen ñooñu rek ngeen xaar leen dégg ngeen voilà moo tax man débat ci biir Guèye Ndiaye bi nekkuma ci quoi parce que dénkuma ko dara sincèrement dénkuma ko dara bu ko neexee na naan ataaya ak George Washington Bush bu ko neexee na naan fu ko neex ataaya bu ko neexee na ree na daanu na kaf dénkuma ko dara <laughs> ñi ma dénk dara ñii sama bët bii jomaay la sama bët bii sonko aw ma beneen heure laa takk nii comme yu fas yi sonko jomaay jomaay sonko bu ma yeewoo bëccëg sonko jomaay lu jomaay wax lu sonko loolu laay wëri lu sonko wax wax lu jomaay wax ñoom jomaay waxi sonko jomaay rek laay lijjanti yéen bii bët bii dama koo dénk sonko moo tax nalawatul nga xonk ko coy bët bii ma dénk ko jomaay nopp bii ma dénk ko sonko nopp bii ma dénk ko jomaay jaxaran nii laa def taluma leneen Jibi Gueye Ndiaye dénkuma ko dara lu ma ko wax tooñ ko dénkuma ko dara dara dara du du ministre du député maanaam xamuma ko sax xamuma ko xamuma ko xamuma ko quoi lu ma ko wax dina ma ne sax ay moo laa tooñ nga ma de loo ma dénk loo ma dénk <laughs> loo ma dënk ku ma war a nuyoo ku ma war a kii lu ci sa moo laa loo ma dénk yaa ngi may tooñ di dénkuma ko dara dénkuma man dénkuma ko tus bu fekkee nag waa Pastef dañ ko dénk dara waa Pastef mun nañu wax ak moom mais man bokkuma Pastef kon mënuma dugg ci débat boobu waa Pastef bu fekkee ñoom dañ ko def euh, maanaam ci seen parti waa Pastef mun nañ ñëw ne ko sa waay lii bëgguñu ko parce que ñun ci Pastef lii nga fay représenté te kii dafa def lii wala kii dafa def lii dégg lañ ma dem la part des chose nag man laay def débat bu am dama ci wax sama xalaat dama ne waslu sama àq dama ne waa Pastef ñooñu bu fekkee Jibi Gueye Ndiaye am na lu muy représenté ci seen parti mun nañ ko woo rappel à l'ordre na ko bëggeewuñu nii ñun parti bi duñu doxee nii ñun parti bi ñu waxee nii ñun parti bi bëgguñu lii ñun parti bi li honoré ñu loolu waa Pastef la parce que ñoo ko dénk seen dara mu am poste bu mu fay représenté mais man comme bokkuma Pastef daraay Pastef du duma ci dugg damay nekk ci ma patrie aw ma parti ma patrie moo ma intéressé patrie sama patrie kese donc vraiment di wax ni Jibi Gueye Ndiaye aw ma lenn lu ma koy wax ndax dénku ma ko dara dara dara mais nag partem mun nañ wax ak moom gis naa partem di wax ak moom am na waa parti yi ñi ngi wax ak moom ñoom nee nañ mënuñu gis ni ak lépp lu Antoine ñàkk jom def Jibi Gueye Njaay di kaf moom di ree ak moom <laughs> ñoom waa partim la am nañ ñu nekk foofu euh, man bokkuma fa donc ñi ngi wax ak moom xëy na bu ëllëgee bu ko gisee mun na bañ a defeteeg nii ak moom parce que waa partem am na waa Pastef maanaam am na ñu ci kontaanul te nu mu kottanteeg kële mais loolu waa partem lañ bëgguma ci dugg quoi sincèrement bëgguma ci dugg dañu nañ nekk rek ci ay débat yoo xam ni yu national nañ nekk ci ay débat nationaux nekk ci ay vision national nekk ci vision wu maanaam waxtaanee lu ñu bokk ñun ñëpp voilà en tout cas man moom man bu ma gisoon tey jii euh, lu mu tey jii euh, Antoine ñàkk jom bu ma ko ñuusul <laughs> du ma ko nuyu man parce que en du ma am ci moom ndax ñaawte fii mu fi def ndax naqar gi mu ma teg ndax fen yi mu nekkee woon Antoine bu ma ko gisoon dinañu àttee dina tal siiñi bëñ wala ay ñuus dinañu àtte ko loolu moom man man gëm naa ni bu ma tasoon nag la major Fall wala Antoine ñàkk jom dinaa leen ñuus ko wala dinaa xeex ak ñoom te xam naa ne maa leen mën dinaa leen ñuus fu suñu bët dajee man ak Antoine dinaa ko noq noq laa ko noq fu sama bët dajee ak Ismaïla Madior dinaa ko noq loolu moom man maa leen ko assuré dinaa ci def sama kéemtaay kat fu ma sama bët dajal ñeente ak bu ak ki nga xam ne moom mooy Antoine ñàkk jom dinaa ko ñuus parce que dinaa ko saaga ndey nii na ko bàyyil fen nangamtaan nangantaan sa ndey nga ba mu kii ba mu mu jóg mu dóor ko uppercut nokk ko ba toog ci kawam puudar ko sëlëm ko koloj ko xoj ko mu ma dajeeg Ismaïla Madior dinaa ko noq loolu moom leer na léegi nag am na ñoo xam ni am na koo xam ne boo dajeeg moom du ko dóor am na ñuy sénégalais yi dajeeg ñoom duñ leen dóor am na sénégalais yi dajeeg ñoom duñ leen ñuus mais man bu ma dajeeg ñu dama leen lu ñuus quoi muy leer non bu ma dajeeg Ismaïla Madior dinaa ko ñuus quoi tons loolu moom day leer am na sama tons buy expliqué nii bokk ak sama yaay nday baay nee ma non non fils leer bu ma dajeeg Ismaïla Madior dinaa ko noq ko loolu loolu takk leen ko téere bu ma mu munee na ma na ma dóor mais bu ma dajeeg moom dinaa ko noq ba toog ci kawam bu ma dajeeg Ismaïla Madior Fall wala Antoine ñàkk jom dinaa leen dinaa leen noq quoi dinaa leen noq noq yi métti boobu bu ñu bàyyi fen ñu bàyyi ak di wër di wax dëgg Ismaïla Madior Fall Antoine ñàkk jom Sidiki Kaba Aïssata Tall Sall ñeent ñii ku ma ci dajal dinaa la ñuus na ko takk téere Ismaïla Madior Fall Antoine ñàkk jom Sidiki Kaba Aïssata Tall Sall kuma ci dajal dinaa la noq doo demee noonu ku ma ci dajal sañu bët ñeent di dinañ raak voilà kon nag les nekk leen ci li ngeen nekk ngeen wóolu gouvernement bi bàyyi leen xel te xam ni ñi ngi ci liggéey bi te seen xol dina sedd seen xol dina sedd seen xol dina sedd incha allah seen xol dina sedd bu soobee yàlla kon gars yi di bëgg ci yéen kontaan ci yéen rek amuñu lenn lu ñuy wax lu dul euh, di leen ñaanal rek yàlla defal leen jàmm ngeen fekke lépp ngeen fekke lépp lépp lépp lépp lépp incha allah bu soobee yàlla voilà hmm. en tout cas euh, vidéo King Fahd Palace bi yegg na fu mu war a yegg gars yi jot nañ ci xam nañ li may wax jël nañ xamal nañ ma tamit ne nalawuñu foofu laa yem xam nañ ni Aline Badara Tall Sy qui est un frère à Racine Sy mi ngi fay liggéey te moo occupé retraite la dem moo occupé achat yi King Fahd Palace loolu xaw ma ko woon <laughs> moo tax sama gars yi ak ñoo yor bagage yi <laughs> moo tax ci laa noppee de ma ne sama gars yi ñëw Racine ñu ne ma mais Mollah yow yoroo liste gars yi man leen ah ñu ma non du nga yor waaw yaa ñi ngi dégg nga naan Père mbaw directeur eh, d'exploitation kii licence yi ñëw ma am na tur yoo wax ma la laa xam nga alin Badara Tall si man leen déedéet ñu ne ma ma nga fa ma ngay liggéey King Fahd Palace et il est en retraite mais moo occupé les achats di King fat Palace jënd bi lépp lañ fay jënd di indi man leen ah. xam ngeen booy ñëw bëgg di bëgg a fen di bëgg a fen ñoo xam ni saa waay dañoo toog ci bagage yi nu may def moo tax ma lem ko ba mu ron <laughs> lem ko ba mu ron ne wuyu ma maa doon wax rek maa waxoon waxeet maa doon maa doon jaay mën a wax maa doon jaay mën a wax ba toog ci ay waxkat ñu ñoo xam dañoo toog ci wax ji xam lépp ne tekk noppi pare naa ci bay ñëw di wax bañ lay xamal ña fa nekk nag ñoo xam ne yow yow sax xamoo koon man sax man dama dama ump woon ñu may xamal ñeneen ñeneen <laughs> buñ jógee asalaay ba ñëw ba jóge asalaay ba ñëw ba dem pale jóge pale ñëw king fat bañ fa toogee équipe bañ fa indiwoon ñëpp a dem ñëpp dem ñëw nañ benn moment ñu tasaare leen ci king fat bi ñu lijjanti fa lu luñ fay lijjanti lépp ñu wër gouvernement bi yëpp ñoom ñëpp seey nañ kenn nekkatu fa kenn <laughs> sama gars yi nag ñëpp a seey king fat jamono ji à part le président de la république ak njabootam kenn desu fa kenn desu fa ñëpp a seey ñu seeyal nuñ leen indilee toog nañ fa ay une semaine deux semaines waat nañ leen fa dànk ñoom ñëpp delluwaat nañ seen kër gars yi <laughs> loolu gars yi ñooy mag de Racine Racine gars yi jekku nañ la nag chett sa lobby bi <laughs> sa lobby bi puissant bi <laughs> gars jekku nañ la de gars yi dañ la téye ci loxo nii dañ la tënk ci loxo téye nii di la xool ngay lappi-lappi ba léegi rey la ba léegi rey la ñu ngi la téye nag à deux cent pour cent ci ndigg lañ la téye ci ndigg ngay ci ndigg ngay lappi-lappi <laughs> ay ay sama ndey ne ni moo te mu foog ne moo téegal gaynde saa yu paree king far génn dem xam nga en face King Fat foofu la Amadou Ba dëkk mu dem ci Amadou Ba di ratatati wa papa papa papa non papa papa sama gars yi nee nañ ma ñi ma fekki nee nañ ma gars yi xam nañ lépp def tekk tekk loolu fa bàyyi nag boo dee nit war ngaa xam lal la ak sa frère ba nga fa indi ak sa jabar ja <laughs> sa ñaareel ba ma nga ca ma nga ci hôtel ba di liggéey ci hôtel ba di encaisser ci hôtel ba mm-hmm. waaw sa ñaareel ba bu jur sa seex ya ma nga ca hôtel ba di liggéey ca hôtel ba di encaissé ca hôtel ba sa frère bu retraité ma nga ca hôtel ba di liggéey ca hôtel ba di gérer achat ya lépp nga miine say nit ak sa sa waa dëkk teg leen gars yi xam nañ lépp lépp lépp lépp nañ lépp renseignement yi dugg nañ fa noté lépp jox gars yi gars yi téye teg di lu xulli nag à l'œil ngay lappi-lappi <laughs> xamoo dara dama lay wax ne yow meeg li enseigné Madiambal Diagne jàng koo dara xamoo dara toogal xaar toogal xaar voilà donc gars yi bëggee magoon ndamoo tiitaro incha allah bu amee leneen rek nañ leen ko wax waaye daal lu may tax a jóg tey moo tax ma def laa bi mooy di leen dalal seen xel di leen xam ni di leen wax ni di ngeen kontaan di ngeen bëgg seen xol dina sedd ci nguuru Jomaay Ousmane Sonko ñi ngi ci liggéey bu doy waar liggéey bu mucc ay ay résultats yu am solo yu leer nañ tegoogum nañ mais xam naa dafa am lu ñuy xaar lu ñuy xaar lu ñuy xaar pour boucler ko jox leen ko loolu nag waxuñu ma ko maanaam li tax ñuy xaar parce que luñ ma won man nee naa leen lii loo leen di xaar pour teg ko fa ñu ne dañu am lu ñuy xaar xëy na complément la ñu matal ko dóorandoo leen lépp ay xewali xewali xewali xewal lépp yomb ci yéen dëkk bi naat dëkk bi neex ngeen gis beneen àdduna bu soobee yàlla incha allah te ñaan nañ yàlla nag fekke loolu tamit ñoo koy fekkee ndoo de ñoo koy fekkee ndoo de parce que ñu nit dañuy ñëw foofu di jëfandikoo loolu ngeen di jëfandikoo xewal gi ma gis nii ñaanuma yàlla toog fii ngeen koy jëfandikoo moom ma toog fii damay ñëw ak yéen ñu nekkandoo lekkandoo ko sëqandoo sippendoo logandoo ni mugg incha allah bu soobee yàlla li ma gis du ma toog fii ñu ma koy nettali maa ngi ñëw ak jàmm ak salaam ci du yàgg dara comme ni ko ko waxee du yàgg dara ngeen gis résultat résultat yooyu balaa génn danaa ñëw Sénégal toog ak yéen ñu sotti ko ci palaa bi ñu sëppandoo sippeendoo logandoo mu ne muggu incha allah bu soobee yàlla nay leer mboobu moom du doo leen ma ko nettali de dégg leen ma bu baax doo leen ma ko nettali li ma gis du yéen a ma koy nettali dañ koy lekkandoo dama ciy lekk par force <laughs> dama ciy lekk par force jëfandikoo ci par force nay leer donc gars yi bëggee màggal ndamoo tiitoro pisal la man daal maa ngi fa xaw ma kante cakas bin bin bi léegi rek yàggatul dara dara dara dara dara dara dara bàyyoo ko fi booy affaire bi déglu leen ma de Sénégal dina dinaa ñëw dina jax aéroport yi dina fees tepp tepp tepp bay tuuru oto yi dinañ corné cakas gin-gin gi dina yëngu réew mi dina yëngu télé yi nag fu nekk ni ñi ngi rang ku ci nekk naan exclusivité di wax sama grand woo na ma nee na ma jox ko exclusivité euh, kii lu euh, mu tudd euh, maire de Guédiawaye waaw sama grand woo na ma nee na ma moo jox ma exclusivité bi voilà yeneen journaux yëpp taxaw nañ ñëpp a ngi taxaw tele yaa ngi taxaw dama ne cakas bin bin bi by force mi ngi nii leer naññi aéroport baa ngi fees tepp ak doomu aadama yi foofu ngi xumb barrière yaa ngi ñuy teg cakas bin bin xotti jaar ci digg bi gars yi di tëb di naaw di salaxu cakas bin bin cakas cakas bin bin cakas bin bin cakas cakas bin bin xoolal Mollah du muy dugg biir cakas bin bin cakas bin bin cakas bin bin cakas bin bin leer na nañ par force kenn mënu ci dara nix naada noonu lay demee incha allah loolu kay leer na bu ànd ak nit nag cakas bin bin bu nar a bëri doomu aadama yi taxaw incha allah te yàggutul dara dara dara dara dara leer na naññ c'est le dernier réglage ñi ñëw nag fekkee bu ñu yàq bool bi bu ñu yàq bu ñoom Ousmane Sonko Diomaye di yàq incha allah dina ko fekk voilà parce que seddale moom taamu naa ci kuddu yu njëkk ya kon peace and love and I'm out à bientôt incha allah jaaraama